Euh, grand ngañ ngañ Demba borom géejawaay. maa yaa ngi si jàmm. maa ngi baax a baax. alhamdulilah dafa mel ni tur bi moo gën a siiw jëmm ji lu waral loolu. waaw loolu am na man moom tour bi dem na waaye gis ma yombul. waaw parce que man maa ngi daw yu bari rek xam nga. mooy loolu waaye nag tey moom génn naa parce que dama ñëw Gambie c'est la première fois nag ma ñëw Gambie waaw ku ne xam ne sama diggante ak Jamaïcain ak Lamine Jamaïcain ni mel man. waaw donte parcelle la nekk di ko bëggee waaye saa du duggee géej waaye rek man la fay seet ndax nag sama waay la waaw nekk koo xamante ni ku ma fonk la su ma fonkee nag jàpp ma dëgg tamit Lamine génn ji waaw ba chaque jour nag nit ki buy ñëw si yow di ñëw si yow su amee bisam dee ko demal parce que moom saa yi ma ko woowee wala Lamine woo ko mu bàyyi léppam jël oto ñëw sama place toog suy demaat jël taxi dem kooku nag yëg na la ko su xew xewlee nag ba Gàmbi war naa fu mën a ñëw teewal ko ba mu xam ne nag yëgguma yëg man it yëg naa ko moo war waral sama teewaay Gàmbi tey aussi itam xam nga di ñaan làmbam ji suñu borom def ko làmb joo xamante ni xam nga waaw làmb ju làmb joo xamante ni waaw stade bu fees dell waaw moom ci xéwal yi yaatu di ñaan yàlla tam mbas mi nekk suñu dëkk bee muy senegal suñu borom jeexal ko fa ñaan Gàmbi gi ñu ñëw itam yàlla buñ fekk benn feebar yàlla benn feebar aussi itam jot dugg si bi rek war nañ ñu ne ñu baax lañ parce que bi ñu ñëwee gis nga fi ñu dalal ci kaw la ñu yéegal yaa ngi dégg ci capitaine bi nekk dalal ñu di ñu ataayaal loolu yombul waaw kon sant yàlla la loolu yombul waaw di béggee ñëpp di béggee Lamine mi nga àndal di ñaan seen sidi itam yàlla na ko suñu borom def mu nekk sidi nekk ca kaw ak Fekh TV itam moom it sama site la moom moom Fekh TV site bu bees la bu am solo moo yéen a bokk moom ca kaw ca kanam ter mbaw géré ko muy seen papa waaw patron bi chaque su mu moom. baabu bi. waaw lu la wax. chaque jour dama dafa ma gis may may doxal alami. waaw patron ba kii dafa ma woo ne ma. kii baabu. mu ne day dax diir jël ma. te ba sut bi door moo diile waa baabu mi moom lan la. Ah? baabu kii yaa ngi moom ba door. nga dem ba site bi ñëpp xam ko man a TFM nga woo ma ne ma damay dàq jërëjëf jii la il faut être sérieux vraiment vraiment Babou. loo ko waxal def bëgg di indi Pepe bi bu bëgg ko indi Pepe Kéré wasaare. Pepe ma ne ko wasaare du wasaare wasaare seen wasaare rëy soo wasaare lépp waaye nag wulli dañ ko ba Babou. keroog waxoon naa ko bésat nga waat ma ne ma non garaaw dama non Babou il faut arrêter Babou doo ma doo diili jël ma du ma ko nangu ki sama rak la bàyyi ko mu liggéey liggéeyam ah Ba sëñ bi wax rek Babou waay ah, de bu ñu ñëw di ma Keef. amateur yi. Ah, ah, amateur lamb lañ sëñ bi <laughs> naa kàddu gi kii laxa tudd mais yow laa la. Euh, Mamor laa tudd. Mamor Mamor waay. Euh, foo dëkk. Euh, Touba. Touba waay. combat Leket Baara ak France xam nga leen. non kii moom ko doon wax sànq nag euh, xaw ma leen mais suba nee na la signature bi xam naa dinañ ca teew incha allah waaw. kan mooy sa mbër. man <laughs> Eumeu Sène mooy sama mbër nag vraiment. surtout Samba Xoyar. <laughs> oui. <laughs> ban combat moo la gën a neex ci combat bi. non combat mook ci Gris Bordeaux bokk na ci combat bi gën a bi ma gën a neex ci sama àdduna mook Gris Bordeaux waaw bokk na ci combat bi ma gën a neex. ma doon ale bi Gris daan ko retour bi Eumeu Sène daan. waaw moo la ci mais retour bi bokk na ci li ma gën a neex. parce que Eumeu seen dafa doon mbër boo xam ni mbëru ju dafa am jom mbër bu am jom la c'est que nag xam nga bu defet ñëwee moom mooy loolu mais Eumeu mbër bu am jom la mbër li ma gën a neex ci moom loolu ci la bokk mooy jom ji waaw ah, vraiment. sëñ bi terminal la. Ibrahima Ndiaye. bu baax sax. Dakar la dëkk aussi bool bool la loolu li ne xanaa en général Tapha Tine moo nekk seen mbër yow de daa ni bokkoo ci. Oh, waaw man wax dëgg si yàlla Balla Gaye mooy suñu mbër. waaw papaay mbër yi kookoy sama mbër man. léppam su bàkkoo mu neex su bëree mu neex barki borom daaru voilà kooku ndaanaan la lamba ko soxla quoi. de. Balla ak Ama. kii wuy du ma ko <laughs> xam na ah mais sa boobu xam nga rek gaañ jamono boobu gaañ fekk wéru rek mais bala bu nekk ci dëndëm. bu jàppee Eumeu Sène sa waay Modou anamu fu mu jàpp Eumeu Sène gaañ xool dóor Balla Gaye fu mu jàpp Modou Lo wiccax kon Eumeu maa ko man na mu def sëñ. waaw ñu ngi si Lat Lat Sall Abdoulahat Sall. Abdou Lahat Sall. Abdou Lahat Sall. Abdou Sall. waaw Abdou Lahat sa bi daa màgg dafa neex. waaw ah, gis nga. <laughs> moom moo xaw a la. na de Sall dafa neex. Sall dafa neex. ci nekk. maa ngi sant. mooy sa mbër. Eumeu Sène. man sëtu Samba Xoyaan. waaw mooy sama mbër Eumeu Sène. loolu gën ci moom. non jom jomam moo Gris Bordeaux ci la ma neexee ba léegi. comme ak Gris Bordeaux dafa wane jom loolu la ma neexee ba léegi. waaw mooy sama mbër quoi. moom Lac de am ngeen bis bu rëy de. non loolu ragaluñ ko la de Guiers Lac de Guiers loolu du combat. géejawaay la non koy wax rek mais loolu du combat. bu tax non parce que leader dañ ko jàpp daan ko. est la ca mu ngi ca Balla Gaye est-ce que la ca Balla Gaye mu ngi ci la de Guiers. waaw mais euh, bu nekk la sañ bay xeeñ rek la bitel bay xeeñ. loolu kese la de. wala ñaata defet la am bari na macha allah ay defet boo ko doon xayma am na ñetti defet wala déet la da ngeen benn defet la am boo xamante ne dañ ko daan te ki ko daan Eumeu mais Eumeu Sène boo xoolee ñi fi doon bëre ñëpp amuñu defet ñëpp moo leen teg ci suuf xoolal li ma la wax indiwaatal ay kombaam rek. <laughs> non indiwaatal ay kombaam rek <laughs> mënu ma laa limal mais indiwaatal ay kombaam rek. jërëjëf Cheikh jërëjëf jaajëf